asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ci ndigalu xalif général des Layènes Mouhamadou Makhtar Thiaw ak njabootu layen yi nekkee ci département bu Tëngéej ak li ko wër. daayira maam Alassane Thiaw Laye nekkee ca Kër Ndiayloo ñooy amal conférence religieuse bu mag. ñu tuddé ko ngontal magni samedi lay am fukki fan ak juroom ñaar ci décembre atum 2022 ci pencam kër njaay cherif ibou seyni tiawlay moko ko waxtane mom mi nga xamanteni mo nek soppey këru diine yi soppey talibé yi conférence bi nak ñu fas ci cee fàttaliku mamadou gueye ñu gën ko xam ci colonel dañu ci sargal el hadji amadou sam ñu gën ko xam bay as conférence bile ñu ngi ci wo monsieur le ministre Oumar Gueye di ci maire bu Sangalkam Pape Sow di maire bu Bambilor Ndiagne Diop di ci honorable député Souleymane Doy, di ci honorable député maire Omar Ciss waaye dit ci woo tamit bépp julit bu ci département bi ak li wër mbokk yi bés bangok samedi la fan ak ñaar ci décembre atum 2022 ca pencam kër